nuyu ñi fi ñi fi toog ñëpp euh, di d'accord bon may may nuyo waat di di wax salaamaaleykum comme ni ñu ko xamee di remercier encore une fois presse bi bu baax a baax ci teewaay bi c'est pas évident euh, après fête donc euh, la ñu la ñu la ñu jóge di door a reprendre liggéey bi c'est pas évident ñu déplacer leen mais quand même def ngeen ko donc euh, Baye Mass ak équipe bi nga xamante ne ñoo nekk ci ginnaawam ñu ngi leen ciy remercier bu baax a baax a baax comme on aussi di remercier bu baax a baax sama sama mag bu jigéen muy Zeyna ci entrée boobu noonu nga xam ne def na ko euh, moom aussi mu nekk ku ma ku ma estimé koo xam ne aussi yàgg na jàpp ci sama liggéey encore une fois di remercier aussi li nga xamante ne mooy équipe bi nekk ci ginnaaw muy le label Impossible Prod pour liggéey bi nga xamante ne def nañ ko ci projet bi nii depuis bi ma adhéré label bi euh, en décembre mu nekk liggéey boo xam ne c'était pas facile comme ni ñu koy waxee mais alhamdulilah bi nga xam ne moo ci njëkk muy projet bi Hermas réussir nañ ko parce que pare na ci jàmm et le cinq incha allah dinañ ko jox li nga xamante ne mooy mooy sénégalais donc dañuy tijjeeku encore une fois ci ci ci presse bi pour xaar seen ay seen ay questions concernant li nga xamante ne mooy Hermas mu nekk un projet de set titres comme on dit euh, pourquoi ñu def projet sept titres bi pourquoi le prix euh, et tout lépp loo xam ne bëgg ngeen ko ci xam donc pare nañ pour répondre leen ci exactement euh, juste benn affaire bi nga xamante ne dañ koy dañ koy préciser mooy amul benn affaire ci biir projet bi boo xam ne tënk nañu wala dara loo xam ne dafa tax ñu dem ci benn ci benn univers bu ñu bu ñu bu ñu tënk loolu moo def euh, Air Mass donc Baye Mass dañ ko tàmm di gis ci benn musique ñëpp dëkkal ko ci musique boobu noonu alors que depuis un bon moment depuis sept ans depuis huit ans mu ngi nekk di liggéey ci yeneen univers musical donc c'est l'ensemble loolu noonu moo def Air Mass donc Air Mass benn molécule la musique univers musical yu bëri la yu ñu boole def ko ci benn projet et loolu moo expliquer temps bi mu jël pour ñu pour ñu aboutir ci euh, merci beaucoup encore une fois ci ci teewaay bi parole yi je pense kàddu yi am na am na solo trop bon Mass alhamdulilah ay parole ay parole yi nga xam ne moom la jot a woyagul son yi nga xam ne moom la defagul euh, yépp moom moo ko bind moom moo koy xalaat donc ku ku ku xam maas xam ko ak inspiration benn affaire la boo xam ne nekkul lu may woo ci man lu luy ñëw ci man la naturellement et depuis bi ma débuté ba fi ma toll nii son yi nga xam ne dafa gum naa ko yëpp wala boog yi génn yëpp man maa ko man maa ko bind même ak projet bi nii j'ai même essayé jox yeneen nit ñu bind pour ma def ko si yenn son yi mais malheureusement son yooyu dama ko mujj dugal ci répertoire bi parce que nekk nekkaguma sax ci po way loo xam ne beneen nit moo ko bind bon bëri na ñu koy def mais man sentiraguma ci sama bopp bu baax a baax su ma bindee ci laay gën a yëg li nga xam ne moom laay moom laay way et que ces titres yi nekk ci ci projet bi yëpp man man maa ko bind donc noonu noonu noonu la demee. bu fekkee en ce qui concerne son yi nga xam ne dina am message pour la jeunesse wala boog pour képp koo xam ne sénégalais nga te di déglu Baye Mass bon message ak Baye benn je pense euh, c' est une longue histoire donc lépp loo xam ne musique gu Baye Mass la dañ ciy faral di dégg benn message ak ci lu mu mën nekk soit dafay nekk lu engage soit muy muy rappeler nit yi ci ay valeurs morales soit muy delloo si jeunesse bi ci seen ay ci seen ay valeurs comme je dis souvent donc loolu mënuma ko ote ci sama projet parce que public bi nga xam ne moo fi nekk pour l' instant loolu lañ ma xamee maintenant pour conquérir beneen beneen musique loolu mooy rebondir ci sa troisième question mooy xameewuñu ma musique bu rythmé donc def naa ko ci biir projet bi pour mën a conquérir beneen public donc je pense répondre naa ci ci trois questions yooyu noonu merci beaucoup. damay rester si fi ma si univers bi ma nekk bon si s'agit de de univers musical univers musical jamono bii nii bu fekkee artiste bi dafa bëgg a sori mënul def benn style musical kese parce que musique dépassé na lool bu njëkkoon da ngay gis kenn ñu ne diw artiste pop la wala diw. arène bi lay def wala diw mbalax lay def mais musique dépassé na lool le moon marche plus vite maintenant léegi on parle de variété donc dangay xool lan nga fiil boo foree benn reggae nga fiil ko def ko bu fekkee nice na parce que public bi léegi lépp la ñuy déglu donc du ma du ma figé ci benn musique damay damay def variété mais quand li nga xam ne moo nekk socle bi maanaam moo nekk euh, euh, essence bi moo nekk ci biir fond bi loolu dama koy garder mooy aspect message boobu noonu ngay wax engagement bi nag ba xam dinaa ko continuer ou pas loolu je pense meilleur juge bi mooy le temps mais benn affaire bi nga xam ne xam naa ko te du changé mooy tant que maa ngi fi di dund su ma gisee loo xam ne dama ko war a wax pour sama société lu ko war a defar dinaa ko wax incha allah. Euh, xam nañ fi musique toll actuellement euh, vente ak par exemplaire doxatul sa marché plus parce que ñun ñëpp dañoo dund li nga xamante ne mooy piratage da ngay nekk benn une année di liggéey ci benn affaire. mais bu génnee après ñu defar ko à mille exemplaires nga romb sa oto ci tali bi ñu taxaw di la ko jaay donc comme loolu noonu doxatul loolu moo tax ñu def benn exemplaire bi mais aussi benn exemplaire bi parce que Mass def na sept ans de carrière te deful benn projet donc man si sama état d'esprit bi nga xam ne fi nga xam ne fa laa nekk mooy projet bi gisaguma lu am lu gën a am valeur ci sept ans yooyu noonu ma liggéey parce que mooy benn affaire bi nga xam ne moo am unicité ci sama musique ci sept ans yi nii yëpp boo doon xool benn affaire bi revenir benn yoon projet bi nii la mooy Hermas ma def si liggéey def si fond def si def si forme bu bëri liggéey ci en image liggéey ci ci qualité musicale excusez-moi ba pare liggéey ci ci qualité musicale donc dafa am valeur ci man am valeur boobu noonu mu am valeur lépp loo xam ne am na valeur dafay raar loolu moo tax ñu def benn benn exemplaire euh, ci côté deuxième question bi muy muy côté côté plateforme yi je pense producteur bi moo gën a moo gën a mieux placé pour répondre ci question boobu. Euh, ok. Puis la semaine qui suit sera disponible personnel à lui boo xoolee musique bi yi nga xam ne moom la ñu jot a dégg dafa xaw a magee un donc ñi koy déglu sax la plupart duñu sama génération wala boog sama génération récemment la ñu commencé gën a focus si masse bi nga xamante ne diggante bi ma nekkee impossible ak léegi parce que univers musical yi xaw na changé un peu donc cible bi mooy conquérir d' sama jeunesse ñi nga xam ne ñoom laa gën a maaseel du variété bi nga xam ne nekk na ci biir projet bi lan moo tax ñu dem ci mbalax bi parfois ñu dem ci yeneen univers musical loolu moo ko expliqué donc je pense cible bi mooy gën a gën a convaincre sama sama génération parce que en ce qui concerne mag ñi ak sama grand frère yi moom am naa leen ba pare marché yi dafa changé donc dafa changé aussi il faut nga adapté wu ak marché local bi nekk euh, on sait que marché bu ñu ko waxee depuis sept ans mu ngi liggéey depuis mu def ay single yàlla di ko bu mu def Sénégalais yi ñu war a génnee projet am na ñoo xamante ni yàgg nañoo sonal ci projet boobu pour génne ko il faut ñun tam ñu xool comment on peut faire sortir c'est-à-dire ce n'est pas simplement sortir un projet pour le sortir wala le sortir pour le plaisir des Sénégalais nous des entrepreneurs dañu am ay employés et on injecte aussi beaucoup d'argent sur une production donc on a essayé juste de nous adapter en fonction de offre bi ñu am en fonction de possibilités approche bi am c'est cette approche artistique musicale mais nous en tant qu'entrepreneurs culturels on est des businessmen il faut ñu xool aussi comment nous en sortir après pour la deuxième question effectivement euh, pour la tournée d'ailleurs euh, c'est une c'est une c'est une tournée ci mois de juillet bi euh, je pense que su ma juumul dinañ def Tamba Tamba Mbolo Guéréo Daara Jolof je pense juillet on a une partie de la tournée on revient à Dakar le 5 pour faire 6S. Après 6S, on monopolise tout parce que ça fait des mois aussi qu'ils travaillent sur un projet. Et après, on enchaîne sur, la, sur, les, autres régions. Mais ce qui est sûr et certain, que ce projet, euh, nous avons les régions, les 14 régions. Je pense qu'on a déjà commencé à travailler dessus. Pour sa première question, moi, lancé nañ communication événement le 5 août mu war a nekk événement bi nga xam ne moom la ñuy dem ngénte sama sama projet bu neex bi Hermas donc je pense man événement bi nga xam ne je suis au courant actuellement nekk di ci liggéey depuis un bon moment événement bu benn artiste bu tudd Baye Mass la euh, te le cinq août lay am 6 lay am donc euh, keneen ku bëgg a def événement nag dama koy ñaan mais ci njëkk na ci njëkk de waaw donc par rapport ak par rapport ak deuxième question bi mooy ndax di ngeen fecc bon je pense jooyloo nañ leen assez quoi et que le 5 août moom di ngeen di ngeen fecc parce que am na ay ndaanaan ci biir kii yeetu mu ngi ci biir gënee may dëkk bi avec le featuring avec Zes aussi donc y a pas mal de sons yu yu rythmé quoi ci projet bi incha allah. <laughs> projet dafa dafa metti dafa laaj investissement bu baree baree bari musique léegi dafa cher. musique léegi dafa dafa demander moyens yu bëree bëri donc sept ans de carrière mun nga ci génne quatre ans yu njëkk yi parce que approche la début la comme début la mun naa ne sa xel du nekk ci ay projet de trop te su boobaa da ngay nekk ci apprentissage bëgg am assise bëgg public bi xam la donc man loolu moo nekkoon samay début beneen bi ma nekkoon di jàng en même temps donc ku nekk xam na ne jàng université dafa metti donc mënoo ko boole ak focus war a tëju si studio yi projet donc man ni ma bëggoon évoluer mooy di def ay single de temps en temps tout temps mën a garder sama jàng bi ma demee nag ba li nga xam ne bëgg naa ko ci sama jàng ma am ko am naa jot bi et que actuellement label bi mu ngi ci ginnaaw pour ma def un projet ñu focus ci loolu moo def euh, lan moo tax ñu xaar sept ans yooyu noonu pour def pour def projet merci. effectivement gis ngeen 10 millions euh, mais quand tu quand tu oh, benn exemple.

di nekk ci teen bi tamit mun na ko déglu te képp ku ci am cent franc pour jënd albumu Mass fekk album bi di jar loolu boo ñëwee ñun dañ la koy jaay parce que ñun aussi dañoo liggéey def ci ay moyens donc di jaay euh, li ñu xam ne dañ ko def hormis passion boobu noonu mu nekk produit la donc mm. euh, am nañ ouverture pour jaay képp koo xam ne daf ko bëgg maintenant reste à voir aussi lan mooy nekk idée bi nekk derrière lenn li ñu xam mooy ñun ci côté population bi la ñu nekk ci côté peuple bi la ñu nekk amuñu benn appartenance politique euh, fesaluñu ko wanewuñu ko te loolu noonu je pense pas mu changer du changé parce que tout simplement arrangé wuñu te bokkul aussi si suñuy conviction donc benn gëm-gëm bi nga xam ne am nañ ko mooy toujours rester ci côté population bi parce que ñoom ñoo fi rester je pense question boobu noonu laa ci laa ci retenir pour l'instant c'est ressources humaines o on en parle souvent que Afrique il a am nañu sous du ñëw Sénégal di tëgg donc suñuy artistes war nañu fi jóge di dem et bu ñu liggéey alors on a toujours été dans cette optique moo tax ba déglu alors di nga xam ne defuñu ko juste pour Sénégal Sénégal est très représenté dans la zone mais de la direction c'est libre, ça ne veut pas dire qu'il fait de la politique. Moi, je suis politicien. Comme un politicien. Il, ne, il, ne, travaille que sur ça. Je pense que l'environnement, nous disons qu'il y a des erreurs et qu'il n'en parle pas. Mais je pense que euh, si c'était politique, il n'y aurait intervenir ça. D'habitude, ils sont. Des fois, on dans un cadre général. Je pense que même dernier son, à chaque fois que vous voyez ces gens de sont sortis, la plupart du temps, les que ce genre-là, nous aussi, on l'accompagne. il aurait pu faire des featuring ak artistes yi nekk yëpp parce que ku ci nekk soit mu ngi koy sollicité wala am na rapport ak ñoom il a fait le choix de choisir Authentic ce qui a fait un excellent travail aussi peut-être que dans l'album il y aura d'autres personnes qui seront qui seront présentes euh, <laughs> oui je pense que ça moom moom moom moom je pense c'est c'est très avancé quand même mais bon ah